waaw dama fi ñëw euh, ndax association des personnes handicapées entrepreneurs nous ma invité invité COSEC pour mu accompagner dans ci programme boo xamante ne ñu koy déroulé ma am ci mbégte trop ndax ñoom ñii ay citoyens lañ yoo xamante ne comprendre nañ développement lii la euh, ñu formé wu xam seen métier nekk ay acteurs yoo xamante ne ñu ngi liggéey ci dëkk bi di pexe ba nu ñuy mais également accompagner dëkk bi ci développement ndax nit bo xasee ba am métier bo xasee ba dog nit ko xamantene acteur de développement nga bokk nga ñi tabax dëkk kon ñun dañ fi ñëw ndax président de la République mi nga xamantene ne moo ñu nommé directeur général COSEC ñep xam nañ ne liggéeyam li ci ëpp solo day faral di wax inclusion sociale équité territoriale maanaam fexé ba citoyen yëpp nekk ben fexé également ba bépp citoyen bo xamantene ne mën nañ ko jappalé pour mu jappalé réew mi ci développement am ñu jàppale ko té ñi dañ leen fekk ñoom ñu nekk seen métier

Qui loo xamante ne day promouvoir le made in Sénégal maanaam Séné lépp est quoi ko defar bu ci de def cachet ñu ne Sénégal lañ ko defaree te ñoom ci li ñuy yëngu ci loolu rek la. c'est vraiment tey dama mbégte trop di gërëm président bu baax di vice président di gërëm secrétaire général di l'ensemble des membres di nous, wax né, yemul fii dina am suite li ci topp mooy lan mooy kóllëre bi ñu gën ko fas dans une approche très professionnelle ñu identifier rapidement lan moo gën